problème mu Adji saar Ousmane Sonko commencé na waat encore yëkkatiku yëkkati ay débat yoo xam ne jàppoon nañ ne jeex na. Mm. Euh, temps yi gis nañ ne doorante bi tàmbaliwaat na. Mm. ci presse bi euh, usmaan Sonko démb la génn xaw a tontu ay ñoñom no magistrat yi ñu def sortie ñoom it tey mu defaat beneen sortie euh, problème mu procès mu doon li dikkaat ci plateau yi. est-ce que yow en tant que acteur politique ak ni nga xamee Sénégal jàpp nga ne lii dañu war a dem ci procès pour mu jeex wala dañoo war a bàyyi dossier boobu ne def non-lieu euh, ni ko Ousmane Sonko bëggee wala waxee di moins. Euh, nee na procès bi non-lieu lay. diggante boobu li ma ci xam man ko ci wax. <coughs> mooy moom moo war a njëkk bëgg procès moom Ousmane Sonko bu nekk dafa bëgg nekk homme politique. Hmm. waaw bu nekk dafa bëgg continuer politique moo war a njëkk bëgg procès. ok beneen bi ki topp mooy dossier ak Sarr ak euh, comment dirais-je Sonko ay nit dee nañ ci te ay sénégalais la ñu. Mhm. ay doomu aadama la ñu te seen yéen wu ca dee ban lobby moo leen rey. kan lu waa war a xam la ak kan moo leen reylu. ak ban déclaration moo leen moo leen yee ba tax ñu jóg. waaw loolu mu doon beneen dossier encore. yooyu ay dossier la yoo xam ne. foog mu leer foog mu leer ci kanam askan wi. parce que mm-hmm. ñi dee dañoo am ndey am baay ci réew mi. waaw te doomu Sénégal lañ deuxième fois bi encore dañoo am réew li ñu yor. Mm-hmm. réew nag dafa am nu muy doxee. dafa am mm-hmm. loo xam ne kenn mënu ko yëkkati ci réew te du jaar ci yoon. en tout cas nañ nañ confiance suñu justice. nañ ko wóolu bu baax. d'accord parce que nit. wala justice sax dama ne man du. bu faloo daal justice boobu moo fi dekk ba tey man yaa ne bugguma ci wax dafa nekk loo dafa sensible bugguma ci di man di di annoncé. waaye dafa am li nga xam ne dolli xel rek la ak dolli wante xel rek la te waxtaan moo jur loolu. waaye la ma gënal man di ko ñaan mooy dañ taxawal loolu euh, cëru attekaay yi nga xam ne seen cër la ñu jox leen ñu atte ko lu ñu àtte ku nekk na nga gëm ne lii la ñu lii lii moom lii moo fa am teñ doyloo leen teñ confiance leen teñ teñ teñ delloo leen li nga xam ne moom la leen yàlla jox au lieu que ñu samp leen ba pare na di leen critiquer non Ousmane Sonko bu nekkee loolu la bëgg procès bëgg na dal na tey parce que réew la ñoom ñooy ñoom ñooy programmé. Hmm. heure bi ko war a atte ñoo ko xam du moom moo naan atte atte atte ma. wala nii nga may atte wala nii nga may atte. loolu euh, euh, loolu lu cëram. Mm. te loolu encore. Euh, mais tamit na fi ay jaar jaar yoo xam ne ay acteurs politiques yoo xam ne. yu bëri jaar ci ah. justice lañ leen. lañ leen en tout cas sàkkale pexe benn xasal en tout cas seen projet yi ñu amoon pour réew mi. waaw nee na loolu Sénégal moom du nangoo jaar fu ñu jaarale ñooñu. waaw léegi nag fu ñu jaarale ñooñu mun naa am seen. seen seen mbir moo tax ñu jaar fa ndax suuf si àtte du ko pare comme li ma waxoon rek. Mm-hmm. suuf si lu mu wax lu nekk ma dama cay ànd. en tout du ma gëm ne am na koo xam ne sacrifié nañ ko ngir politique man ma mënuma gëm loolu li ma gëm mooy yow yaa am loo bugg am noo ko buggee boo képp ku la ko tere nga taqal ko baat boobu wan ne dañ maa sacrifier rek. waaye dañ maa sacrifier rek ak it wax dëgg yàlla li nga xam ne moom la justice bi àttee kuy sénégalais da nga war a gëm la justice àttee waaye ni dañ ko sacrifier pour réew dañ ko sacrifier pour politique dañ ko sacrifier pour lii lu man gëw ma ne loolu am na. Hmm. lay la nag ci ki nga xam ne ah dafa def tort bañ daan ko. loolu mooy layam loolu la war a wax euh, loolu la mun a wax. Mhm. waaye nag ñi nga xam ne dañoo am xel di xelu te nga xam ne suuf bi am na branche bu leen tiim ne leen wax xam ne wax na bi walla wala toujours misaan branche boobu am na yaakaar ne ñoom suuf bi ñi toog branche bi tiim leen xam nañ tey xam nañ suba xam gën a suba. Mhm. maanaam kenn ku nekk ci ñoom xam ne ne. loo atte tey ëllëg dina ko laajaan nga atte ko. waaw koo xam ne gis na loolu nag toog na foofu. Mhm. bu lu mu atte rek nañ ko ko gëmal. loolu am na solo. waaw loolu am na solo. Mhm. Euh, temps yi tamit euh, mbirum euh, rébellion ba daanaka mu ngi takkar naa si. Mhm. démb ba tey armée baa ngi ci biir base militaire u Salif Sadio. ay bombardement commencé nañ ko dëkkaat ci biir dëkk bi ba ay doomu Casamance ñoo ngi daw. dugg ci biir Gambie. maa ngi gis sax ancien membre du MFDC bi naan am na benn avion militaire bu ñu fa daaneel. Mhm. Euh, loolu nax nga ko xamee yow en tant que homme politique boo xam ne quand fekkee nga dem gi Sénégal fekkee. ok li ma gis nag mooy waru gar la ci ñun ñëpp loolu mun a parce que Casamance Sénégal la bokk. Hmm. bon lépp loo xam ne lu fa am la ba mu bugg a nelaw askan ba donc suñu soldat si ah. loolu ñu war a jëriñ. Hmm. dañoo war a jóg pour protéger population bi parce que réew li ñu yor quand même. Hmm. nañ koy defee nag ñoo ko xam ba tey. Hmm. ah lu tax ñu jóg it heure bii ñoom lañ xam man du ko xam yow doo ko xam. Hmm. bu nag comme que ñun ay citoyen lañ nañ am ci kaddu citoyen yem ci place citoyen bañ a dépasser citoyen <laughs> am na solo waaw en tout la ci liñ def ñu ngi koy def ñu ñaan liñ ci yàlla ñoom ci victoire parce que lu laal Casamance daal ñun ñëpp ah, parce que seen liggéey yi te rebelle du xarit kenn du xaritu la du xaritu kenn waaw nit ñi mal tax a jóg d'accord Mimi Touré nee na Ousmane Sonko da wax lan mooy position ci loolu lan la xam ci rébellion bi ndax posture boobu nga am yow it waaw normalement sax moom addu ci war na naqarlu ko comme ni ko Sénégal yi naqarlu donc koo waaw waaw mënu ko faj. waaye ma ne donc sa moom mënu ko faj. Mhm. naqarlu ko waaw bokk na ci li nga xam ne. war na ko war na ko. Mhm. amaa nag su ko naqarlu mu fajoo lu faju waaye waxal rek. comme que da ngaa bokk ci Sénégal yi te ñëpp di ko mitillu rawatina ngay miiru gox ba nag. d'ailleurs mi mi yóbbu moom rek nee na acteur politique yépp nañu àddu loolu. kenn ku nekk nga wax loolu war a. Euh, la mooy sa position ci mbir mi waaw man sa waxi Mimi moom ñaareel. doo man lu mu xas dugg sa man génn naa ci loolu parce que du euh, euh, li wax gëmu ko te du wax lu mu gëm waaye man li may wax rek. <laughs> waaw mooy <laughs> waaw waaw man li may wax rek mooy. <laughs> warugar la ci Ousmane Sonko mu tontu. warugar la ci yéen ñëpp. warugar la ci man warugar la ci bépp doomu Sénégalais. waaw sol sa dàll sa pourquoi takkaayu sa dem xeexi. dem xool nu parce que loolu warugar la ci ñun parce que. bëgg réew lay tegtale. Mhm. Euh, yéen a si réew jam lay tegtale. te bëgg sa réew rek yonent bi ñëw nañu ne xabul wattan minal iman hmm. nee na waxul sa nit ku jëf ci réew mi waaye nee na bëgg ko rek hmm. nee na bokk na ci gëm yàlla bon waru góor Ousmane Sonko la mu naqarlu ko comme ñëpp hmm. su ko naqarluwul nag euh, lu loolof di wax ne nit ko aj da ragal ku téen dama bañ gaa yi njort mel noonu rafet na jërë ngeen jëf